ودود كلي أبدا بالود وتامني أدر الوتد ودود كلي أبدا بالود وتامني أدر الوتد asalaamaaleykum mbokk yi teel a ajjuma juróom benni fan ci weeru koor ci atum junni ak ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak ñett ci gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam juróom-ñetti fan ci weeru avril ci atum ñaari junni ak ñaar fukk ak ñaar juróom benni fan bokkul ci lim yu fàtt yi lim bu rafet la kon tey ci ajjuma ji rafet na li ñu ci gën a taamu mooy ko ca daloo ñaanu bis bi yow yàlla miy buurub jibril ak mikaayil tey buurub israfil maa ngi lay ñaan nga musal ma ci tàngooru sawara ak mbëgalum mbàmmeel allahumma rabba jabraila wa mikail wa rabba israfila audu bika min xarri naar wa min adaabil qabr xadiisu bis bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ku taxawal weeru koor ngir gëm yàlla ak sàkku dees na ko jéggal la mu defoon ci bàkkaar xaddis bi buxaari ak muslim ñoo ko nettali qaala rasulullahi salallahu man qaama ramadaana imaanan wa ixtisaaba gufira lahu ma taqaddama min dambi rawaahu buxaari wa muslim